naafila 5 guddik juróomeel gi ci weeru koor sopp nañ ko ci julli ñeenti rakaa rakaa bu ci nekk mu jàng faatiha benn yoon jàng alam nasrah jàng xul huwallaahu ahad lu ci nekk ñetti yoon mel ni ko xaj junni yoon umra te des na ko musal ci ak ñakk des na dolli wërsëgam te xaraf wu ci nekk des na ko ci bindal ñaari malaayka ñuy far ay ñaaw teefam di ko bindal ay yiw di yëkkati ay darajaam ba bis ba di dellu si déwén ak leneen ak leneen mbokk yi ku ci bëgg yeneen ni leeral nga dellu ci xurratu ayni bu Sëriñ Suhaybu bu Mbakke page